dalen ak jàmm beaucoup. internet yi di wa wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di len remercier ci dernier vidéo yi commentaire yi gis franchement euh, yene a ngi may volonté donc loolu yombul donc ama sen fay di kontaan si bu bax kontaan si ñi xamante ñu nek ci en plateforme yi fofu di abonné di commentaire di ma dolel que ça soit TikTok que ça soit Instagram gisna sen taxaway franchement ama sen fay donc ci TikTok gis ngeen ne temps yi m'a leen jox information yi à temps donc bo leen ko amé en audio sur sur YouTube sur TikTok xam donc on leen ko defal en vidéo donc sur Instagram aussi tamit dinaa def le maximum donc di publier euh, ngeen gën ma donc ñi ko def merci beaucoup ñi ko defagul c'est simple boo leen tapé seen Football TV di ngeen gis logo bi mën abonné donc merci à vous. bon yi était thème bi lii la damay ñëw euh, wax équipe nationale du Sénégal tey jii question bi Madame Sadio Mané bu salut Saliou ñëw. Bouna Sarr ñëw ñi ñi xamante ne dañoo blessé bu ñu defee seen retour ba si Moussa Ndiakhate lan moo war a nekk classement équipe type bu équipe nationale du Sénégal man nag dinaa leen tegal benn classement bu xamante ne avec le de Sadio Mané Bouna Sarr ban classement la Aliou Cissé war a teg après yéen aussi tamit ci commentaire yi mën ngeen teg seen classement boo leen mën a argumenté aussi dina baax trop man dama leen tegal benn système bu xamante ne 4 2 3 1 lay doon bu ñu ne 4 2 3 1 ci camp yi. Moussa Ndiakhate def na retour sax du tax damay duma changer sama défense Abdou Diallo Kalidou Koulibaly classé retour de Saliou Ciss fa la débat bi nek dinañ ci wax bu baax baax ak le retour de Bouna sar maintenant Saliou Ciss ñëw na est ce que dañu war a teg Ismaël Jakobs wala dañu wara andi Saliou Ciss nekk na ben question nak bu assez difficile mais je pense que ki di Ismaël Jakobs li mu won ci coupe du monde bi xel dal na xel dal na que euh, par exemple man lim doon titre moy est ce que mën na défendre won na mën na défendre tout ce qui est offensif tout ce qui est centre sama xel dal na ci parce que euh, gis naa ko côté a Monaco ak bi mu nekkee Bundesliga wane na si wane na si boppam bu baax a baax maintenant la relation Sadio maana Saliou Ciss est-ce que Ismail Jakobs war na ka mën a am ak kii di Sadio Mané dama naan waaw.

coupe du monde bëgg nañ ci qualifier en 2026 def euh, lu gën li ñu def huitième de finale euh, coupe coupe d'Afrique day ñëw suñu kanam muy 2024 te gis ngeen équipe bu Maroc gis ngeen équipe bu Côte d'Ivoire Cameroun xam nga donc gis ngeen équipe africain yi Algérie ku nekk day ñëw nekk na coupe du monde coupe d'Afrique boo xamante ne daanaka sax dañ naan mo gëna a parce que équipe yi pa taxaw donc pour ça pour préparer l'avenir da ngay jéem def connexion Sadio Mané Ismaël Diop donc man euh, fofu la basé pour mettre Jakobs parce que dama japp né en 2026 si toutefois dañuy qualifié euh, nga am un Jakobs travail relation bi légui mo gën parce que xam nañ ne date FIFA bëriwul boo fubalee tay bala nga fubalaa day yag donc télé def relation bi mo gën que nga tek ben Saliou Ciss bi xamante ne na la 2026 day âge trop te doo mën compter ci mom donc man jamais euh, ki di Jakobs à droite aussi tamit Bounassar ñëw na est ce que dañu war jël Sabaly teg ci banc bi tek Bounassar boo jëlee un an ci ginnaaw Sénégalais en termes de la base pour wax ne Bouna Sarr parce que les deux joueurs dama les comparé parce que dañu avons le même championnat Ligue 1 française bu en termes de statistique but passe décisif Bouna Sarr moo appelé en termes de tackle, euh, ay duel gagné donc presque ça lu appelé du donc ba pare euh, kii di doon blessé dafa fragile quoi mooy qui euh, di Sabali dafa fragile maanaam doon blessé lu bari moo tax jamono boobu je voulais voir qui euh, di Bouna Sarr à la place de qui di Sabali mais maintenant propre rapport ak Sabali bi xamante franchement duñu décevoir que ça soit même Coupe d'Afrique bi xamante dañ ko tegoon à gauche bokkoon Sénégalais yi xamante ne am ci mom satisfaction ci Coupe du Monde bi satisfaction totale ngay am défensivement parlant il est tout le temps tout le temps au top donc même le retour de Bouna Sarr zame quand même donc qui dit euh, Youssouf Sabal ñu dem ci milieu terrain bi milieu terrain man sama milieu ça va changer un peu parce que je vais mettre Idrissa Ganege accompagné de Pape Gueye pourquoi Pape Gueye au lieu de Nampes Mendy au lieu de euh, qui dit euh, Patessis la même logique bi xamante tégal na naa leen ci côté concernant Ismaël travail dañ ko pour mu leader sur le poste de latéral gauche pour mon Pape Gueye c'est un profil assez différent gaucher pour mon encore travail amélioré améliorer n'est qu'à un niveau pour commenter les sénégalais ont cartes mon dina collègue parce que en termes de pression le moment se m'a fait le dernier c'est parce des jeux olympiques de Marseille 60 000 places Vélodrome euh, en termes de Coupe du Monde aussi, si le match contre l'Équateur, franchement, je une satisfaction. Et donc, euh, il est assez généreux dans l'effort. Et je un peu vers de l'avant, pour aider tirer. Et participe proprement pour moi, quoi. Et l'autre chose à dire, nous aime bien l'équilibre, dans l'équipe. Mais si tu ne joues pas, et, euh, duel en face à Rice, Bellingham, donc euh, avec Anderson contre Angleterre, c'était difficile pour lui. Donc je travaille en Pape Gay. À côté de de Gay, au four et au monnaie, Manam que dans le jeu et, et, dans la récupération. Donc je trouve que euh, accompagné de Pape Gay, ce sera mon milieu terrain. À vous après un commentaire propre à ce milieu de terrain. Numéro 10, je vais mettre Iliman y a une double casquette. Quand on parle de double casquette, ça veut dire que tantôt, mon est 9,5, tantôt numéro 10 et je pense que mon Sadio il parle le même football le même langage même même en termes de football donc euh, c'est un gars assez technique assez intelligent initiative assez audacieux donc euh, pour moi, je mettrai deux flèches sur les côtés Qui euh, dit Sadio à gauche parce que franchement day donc percussions, percussion on va pas on va pas vous présenter comme deuxième au Ballon d'Or mondial donc la relation Sadio qui ça peut être hyper intéressant Iliman Diaby tantôt man nañu euh, permuter tantôt il m'a dit mëna nek 9 et 9 et demi donc sur le côté droit je mettrai qui euh, dit ismaël Sarr ismaël Sarr do mon bi en termes de puissance en termes de percussion en termes de dribble euh, mën na la quelque chose je pense que dina gëna jël ay responsabilités par attentes yi xamné sénégalais amna ko ci attaque nak voilà attaque je vais mettre Boulaye parce que il est généreux comme dans l'effort donc c'est un joueur bu xamante day daw fu nek techniquement parlant on a un peu pour garder la balle mais c'est un gars qui a euh, la profondeur et un doublet. Euh, Eliman tantôt électron libre numéro 10 tantôt mon demi ça peut être hyper intéressant parce que du côté de son club depuis que joue coupe du monde il passe des un autre attaquant donc Eliman derrière un attaquant attaquant c'est hyper intéressant donc système bi pour moi, selon moi Aliou Cissé retour de blessé bu ñëwee lii la war a classé à vous yéen ci commentaire yi ngeen wax ma seen xalaat teg seen classement donc euh, par rapport ak Aliou Cissé pour yéen bu fekkee Bouna saa dafa ñëw euh, Sadio Mané dafa wér Moussa Ndiakhate dafa wér donc euh, ak Aliou Cissé lan moo war a nekk classement am donc mbokk yi amoon na mbégte ànd ak yéen di leen jaajëfal di leen wax rek ngeen gën ma dollal si yeneen plateforme yi que ça soit Facebook Twitter Instagram TikTok maa leen di jaajëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV.